Euh, démb euh, ci mardi bi da ngeen dem waxtaan euh, ak ki nga xam ne moom mooy le nouveau nouveau locataire du palais président Bassirou Diomaye Faye mu recevoir secteur privé bi mu recevoir ñi nga xam ne ñoom ñoy les représentants les représentants des de des centrales syndicales et ci mënuñu waxtaan bi bien sûr. Euh, les relations entre l'État et le secteur privé, euh, mais aussi euh, la diminution des prix des denrées de première nécessité. Alors, on apprend ce matin que yow boo boolewuñu la woon ci liste ñi waroon a dem da nga ñëw à l'improviste yow yaa ñëwal sa bopp qu'est-ce qui s'est passé? bon d'abord damay féliciter ci rencontre bi. rencontre yi nga xam ne ni sax moo jiitu mooy bi am ak euh, syndicat yi euh, li ma ko rafetloo mooy dénk ñu fi yàgg lañ mais au moins euh, élection représentativité de syndicat ñu nekkuñ di wax naan kii moo mag kii yàgg na fi tant que on te fait confiance loolu dama koy rafet te gis nga nim mu rafetee quatre lañ cinq lañ wax nañ li ñuy wax dem ñun nag dafa am benn machine de diabolisation. de diabolisation. waaw bu bu tàmbali te dafa tàmbali woon dafa amoon. bu tàmbali bu visé ñan. bàyyi rek ma leeral lépp rek. waaw mais ñan la ñan la ah. machine bi visé. man ah d'accord. waaw euh, xam nga bi fi président Macky Sall ñëwee man xam nga ne chaque fois boo conseil présidentiel amee. président di voyage Ablaye Wade yëpp dama daan ànd ak man tax lu taxoon xam na ne man suñ ma laajee li ma xalaat laay wax te da ci daan gis boppam ndax moom ci boppam moo wax ci benn vidéo ne sëriñ bu saa yi yuñ ko ma wooyee laaj ko ci luñ xamul ci secteur privé mu wax ñu ci projet yi moo ko waxal boppam ñu taxawu ko tamit taxawu réew mi ci ay jafe-jafe yu amoon ndax bato Aline Sitoé jaata bi bi mu amee jafe-jafe Euh, marocain yi yor ko xëy xëy bàyyi ko fi ba mu ñu woowee xamuñ ci dara mais daf ñu woo daf ñu confiance ñu wuti ay compétence ñu di ko dawal président Macky Sall euh, j'ai et j'avais des bonnes relation ak moom mais benn machine diabolisation daf ci duggoon ba suñ diggante était bien amical xam nga ko ci ay réunion hmm. mais amoon na soit réserve wala muy téye tuuti suñu diggante ci lim jógee danaa la ko wax mooy chambre de commerce lay jóge mooy bi ma liggéeyee chambre de si Kaolack ba mu baax ma xam ne chambre de commerce dakaar moo mën a jàppale yenn chambre de yi te loolu pour mu jàppale ko il faut que union bi dëgër ñu def ma président union ma bëgg union ndax union boo ko yoree chambre yépp yilifoo leen mais yaa nekk seen tutelle ma bëgg def benn liggéey patronat bi bloqué ko biñ ko bloqué élection jot am naa droit ma bàyyi Kaolack ñëw dakaar ñu teg loolu ñu dem diaboliser loolu xam nga lu ñu ko diaboliser. Mm-hmm. sëriñ bu boo ko joxee chambre de commerce de Dakar 2019 sa kaw la jëm. c'est des des informations réelles yoo xam ne ni xam nga président maa ngi moom léeg-léeg dañuy kaf euh, ña ko doon def ñu ngi fi am na ñoo xam ne ni nekkuñ fi loolu créé na toujours développement bi nga xam ne nii man amoon naa ko ambition pour defar ko ci chambre consulaire yi ndax chambre de commerce yi moom rek moo mën a jàppale état ci développement petite et moyenne entreprise ci l'étendue du territoire national amul du patronat Euh, loolu nag topp nañ ko topp nañ ko topp nañ ko ba bi ma yoree union bi wax dëgg yàlla ak kóllëre goo xam ne dama ko séq ak classe politique bi yépp may def sama 30 ans CCBM invité ñëpp ka na ñëw ñëwul muy Abdou Karim Fofana Mohamed Boun Abdallah Dionne ñëw sagal ma fa trop yàlla na ko yàlla xare àjjana mm-hmm. classe politique bi ñëw ñoom Habib si ñëw ñoom ñëpp ñëw ci suba si Ousmane Sonko ñëw fa ñu taxaw nag ne ko voilà li nga doon wax nit ñi ne nag dinañ ma jëlee ci union bi waaye xamuñ ne union ay texte la yu loi bind président mën na ko dindi mais mënu fa dindi mën na dindi union bi mën na ko supprimer comme mën na supprimer xëy xëy euh, supprimer comme li ñu doon wax mën na supprimer conseil constitutionnel wala dara mais mënut a dindi président union ñu def seen i pexe mënul jàll benn fronde rek dem ci benn hôtel ne foll nañ ma xam nga ñooñu biñ gisee euh, président Diomaye toog ña ko doon def gis nga ñoo xëy rek doon lépp lu waa Pastef fii xale yi daal seen loxo nga ca. ah bon waaw. danaa la ko bu ñu bëggee ma jox la ci preuve. Hmm. ñaareel ba li ma la koy jox à la des élections dañoo def meeting. genre meeting boo xam ne déguisé Ablaye Sow ci boppam. dem woo Moustapha Ba signé benn charte ci biir chambre de commerce pour wane ne daanaka secteur privé moom lañu àndal loolu yéen ñëpp gis ngeen ko benn charte loolu yu wax ne ku signé charte bi secteur privé jàppale te moom yiliful sax entreprise bu ñaar nit yor ndax euh, jaaykatu matt lay doon lay def eh, loolu lay def c'est-à-dire responsable na ci li ko fa teg parce que ña doon yàq sama diggante président bi ñu fa bëggee teg kenn man tamit ma ne leen maa leen ëpp doole même nekkuma pré euh, ci chambre de commerce maa leen fi ëpp doole influencé bañ ba teew ko moom waaye doomu aadama moom euh, da yar sam xar pare mu ñëw mbëkk la nga loolu moo àdduna am yàlla sax dafa defar iblisam euh, tey ma ma jaaxle gis président falu na rek mu jël photo bu mag taf ko ci buntu chambre de commerce te defalu ko woon Macky ñooñu nag biñ yëg ne dem naa seeti Ousmane Sonko te seet bi seeti amical la woon dama ko doon seet rek ndokkale mais ma profité wonaale ko problème mu secteur privé génn ci man communiqué ci wax ci pour l'intérêt du gouvernement parce que baax na gouvernement bu toog ñu ne gis na président de l'union parce que président de l'union mooy le première chef d'entreprise qui est le porte-parole de l'ensemble du secteur privé loolu moo bind ci texte yi moom moo bind ci texte yi mooy loolu léegi nag xam naa ne invitation bi président moo ko def mais ñu def ay manœuvre pour ñu bañ ma invité te dañ ma bañ invité mooy dañu dem dugal Ablaye Sow na mooy président yi union des chambres de commerce man Maroc laa nekkoon de kenn ma ko wax dama gars yi ñu ngi lay ko dëkk ah ma woo ñi ma war a woo présidence leeral leen ni leen du leen def loolu dafa am ñaari structure yoo xam ne ba ngeen ko fàttee rek da ngeen def erreur mooy chambre de commerce bi nga xam ne nii décret moo ko créé loi la ñu bind ci attribution bi mu ngi nii mu leer naan les chambres de commerce d'industrie et des service assure la représentation et la promotion des intérêts des opérateurs économiques dans les secteurs d'activité surnommés commerce industrie et agriculture loi la ah ma wax wax début non naa naa naa bon après ma jot invitation sama portable ma daal di ñëw. donc débarqué woo à l'improviste est-ce que dañ la dañ la invité. mais invitation baa ngi nii xam nga xam nga da ñàkk respecte Sénégal. Mm-hmm. moo tax nga jàpp ne boo débarqué à l'improviste gendarme ba nekk ci bunt bi daan la bàyyi nga dugg. kon xam nga xam nga doomu aadama. fale moom c'est organisé. waaw doomu aadama boo xam ne nii. moo ñëw te te binduñu sa tur mbaa ñu woo. voilà xam nga kon doomu aadama damaa wax presse bi ko bind sax ma ne leen vous n'êtes pas intelligent Dakaractu moo ko bind tey il n'est pas intelligent quand même. mais source lu la peut-être. non non du source parce que war naa man a xam ne fale kenn du fa dugg te invité wuñ mu dem bindaat ne damaa wax li may wax ba pare président tontu moom mais président tontuwul kenn. dañuy wax li ñu wax rek mu jël ay. donc dinañ ñëw ci ci dafa am importance. Mm-hmm. dafa am importance trop may ma tuuti rek ma àggal. mais li tax ma tenir pour ñëw dafa am courage wax yoo xam ne ni ñoom dañ ko wax parce que ñoom xam nga lu ñu fexe ña ngay fexe ña ñemewoon ñii dëgër comme sama maas doon bañ am lu ñu naqari parce que ñun politique intéressé wu ñu ah su doon politique rek ñu intéressé ñu dugg ci parti ca PDS la ñuy duggee ci parti parce conseiller président ne ko nommer ministre bi sax mu def ko sax Abdoulaye Wade mayoon na ma ko ci moom mayoon na ma ci moom te mën naa ci wax sax loo xam ne nii ki ko wax da ko wax publiquement moo tax ma di ko wax Amadou Ba maa njëkk a jàpp ci loo xam ne yóbbu ko président de la te boobu il était directeur général des jeunes pour le domaine xamu ko woon wax na ko da ko wax moo tax ma di ko répété su ko waxul woon duma ko wax ak ñeneen ak ñeneen.